sëñ bi. maaleykum de dañoo xamoon réer sax. lal bi lañ toppoon après dañoo jaar gis kër gi. waaw fii nekkoon sa tànk li nekkoon sama tànk bëri na bëriwut ndax man falum njiitu réew yi dama cee war am kàddu poste bu baax a baax a baax ndax man fu ma woowee nit ñi ñu ñëw fu ma fu ma tëggee mitin mu fees dell kon boog damaa soxla mbooloo mu takk boo xam ne ki ma àndal su mu ko yóbbulee mbooloo dina xam ne kii kat indil na ma ay nit ma bëgg nag bu faloo moom mu jox ma poste bu baax. yow daal su ma déggee sa wax yow Bexe daa nga bëgg. waaw. bu saf waxee ñëpp dégg. sa aajo faj na. ma la wax. man nga wuyu si man nga seet si ku xamul dégg na. man maay boroom xam-xam bu ñëpp soxla dama jafe tooñ sa aaji dana fayu dinaa defa loo xamante ne foo waxee fu waay nekk bàyyi nga def ñu wuy si alhamdulilah dinaa la jox téere nag gis nga téere bi da ngay dem sa almeer yi néew ba am juróom benn fan nga suubi bopp ba wan ko ginnaaw te bul geesu te nag da ngay bàyyi ba vingt deux heures nga yóbbu ko fa boo ko defee sa aajo faju na te boo waxee ñëpp a ngi dégg su amul ma xàcc yoon bu ma jël man maa ko wax bisimilah. xawal. xam nga waxtaan wax dëgg ca la armeel nag mënul nekk fenn fu armeel soxna si su mënul nekk fenn dama koy wax mu nekk fenn fu dul armeel yow yaa bëgg de maa bëgg kon dafa nu ma ko waxee sa aajo faju léegi yow mënoo bàyyi man mu dubleel la xaalis bi ma la war a faj mu dubleel la ko boo bëggee sax ma jox la ñaari male nga yóbbul ma ko fa. bu doon man maa nga fay yóbbu doo dégg ma wax la ko mais yow yaa bëgg yow dong yaa fas yéene soo sa daal dem ba sa almeer ya nga fekk néew bu am juróom benn fan nga sugi bopp bi dugal ko fa suuraat ko wan ko ginnaaw te pour gestu benn yoon am. waaye sëñ bi xam nga li ma jaaxal man ni ma mel ci dëkk bi bu duggee du si néew. te fan yi daa am ñu gëj a gaañu dee bi bëreetul comme ni mu doon bari du dëgg boo bu ñu suulee nit benn fan balaa ngaa dégg te beneen fan ba di toog ay at soog a dégg ko gaañu kon fan laa gisee néewu juróom-benni fan. ñaata almeer moo am si dëkk bi te boo demee buntu almeer yi yendu fa doo ñibbis te doo gis baa nga dem ngàcce ba xam denc nañ fa denc ñu fa soxna si bugguma wax ju bëri. yaa bëgg mun nga ko defee ni ma waxee sa aajo faju munoo ko nga jóg man kenn xamoo ma wax man jëf laa xam. xam nga sama xarit bi bés bu ma faloo damaa bëgg ñu fal léegi nag déglu ànd ca armeel ya ma jox la nga suul. armeel ya yow man dama laa gunge si dongu de man dama ay armeel de man ñëpp xam nañ ku ma àndal. man nag ànduma ak ay armeel ñun sax man kii ma àndaloon sax ah ñu ngi naan léegi sax dañ koo génne ci parti bi bokkatul ndax nee nañ élection yi du si bokk waaw man ñépp xam nañ ku ma àndal waaw muy borom jubb bi Aline Kassé waaw Aline Kassé ngi ne ay maam yëpp nekk ci dëkk bi may ni jënti loolu pareegu ma ñu ne du voté aw ma benn nit kenn toog ma aw ma benn mbooloo ñu maa yóbbu ci ay armeel ñu bëgg maa sacrifice rek yow daal lii rek nga xëy na boo suulee dangay jooy damay jooy kay damay def sacrifice ba mënu maa man jooy ma moom muy jooy sëñ bi luus dina ci nekk nag de xanaa nga jox ma rek léegi nag bu ma demee kaa bu ci mënti am bu ma ko suulee gisuma néew bu juróom benn fan naa la ko indilaat boo ma gisee rek xamal ne sama retour mooy yow danga ko dem suul. danga koy jël ne de. ah dinaa ko bëgg ah? fenn ku gaañu de. dégguma ku gaañu de. man duma waxantu. te yéen ñi doon tax ma waxantu. man nga may def xam naa ko mën naaw te maa ngi koy def yéen a bëgg de ku fi mës a dugg sa aajo faju na yaa bëgg man. ba dina ma far premier ministre rek bis bu faloo xam nga man ki ma àndal métro lu taxawaalu fenn. jàpp ma woon nga. amul fenn foo ko mën a orne. jàppal ni ma woon nga.

xaw ma armee fu mu féete. jigéen bu suuli nag jigéen bu suuli dugg ko fi. fu ma koy duggal ma dem ñu ko dafa critique de maanaam bu mel nii moom daa dem bàyyi jëriñ. essentiel daal a fii sa aajo faju. waaye sëriñ naa la wax ñaar ba ñett bis bu ma demee ca armeel ba suul mu naa ko indi nga suulal ko sa bopp. <laughs> boobaa day fekk man maa bëgg. ma la bëgg a liggéeyee. waaw waaw. liggéey bi kay nag moom suñ ko xamee rek def ko ni mu rek liggéey bi kay la xamoo ko nu mu demee noonu. xam nga sa am jom. Mhm. am fulla. yii loolu am fayda. loolu am personnalité am mhm. dignité. loolu day jub fajar di dem maasa caaroy bee di jàmb karoot di yenn. xam nga loolu kuñ am jom rek a koy def. Mhm. du dëgg. dëgg ba tax na liggéey baa ngi nii. moo nekk nii. 300000 ci bopp. tey àdduna yi nii rek laay lépp gis ay teraanga la. àdduna lépp yi teraanga la. <laughs> waay 300000 lay doon. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. léegi nu muy demee moom. xam nga yow. naan mhm. bi tey. waaw. depuis 2000 ba tey. depuis 2000 ba tey.

nga yëkëti bop neew suulal ma fa ni boko défé defee nga 300 la la mais dama lay dolli yenen 200 muy 500. jëf man kay wax ji li mu lem lem lemmal mel ku naan alcool leer na mëna ne wax lu dugg yow ya di xaj yow man ba ma gisé ci koñ bi ak tag gi ma tag ciel naan ma nga am jomat da nga am islam ak personnalité. waxoom néew man doo da nga maa gis may ges yi néew da nga maa mas gis may sangum néew wala waaw gën a jëf même bu ma nuroom ñoom man defu ma ko yéen nii ngeen bëggee toppee dëkk bi di sacrifice nit ñi maay maay parle je parle très bien man. yow rek de safoo ma karoot. waaye te musul fële safoo ma nawe. safoo ma bépp suukar. broullette rek nga ma jox ndax maa sa caaro nga. booy xoolal tey buus broullette yow demal. wax ji nañ day mel ni tëddeewul. day mel ni jib sa xaaj ji dem la mos. ma ne ko day mel ni jib yow sab sar demal. ma ne ma laa faale. sab sar nga ne ma ne sab sab sar. ah yaa ngi daw de sab sar. buusul fële. ah wóor góor ñi ñu ñëw. wóor góor ñi ñu ñëw ñoom ñëpp. benn góor du ñëw góor bu ñëw ma ubbi. yow góor bu ñëw ma ubbi fii. déglul yow man ma lay tamti pante yi. déglul yow yow. fële yow